Acho Hanun. Acho Hanun, Acho Hanun. Acho Hanun, Acho Hanun. Bravo! Get the one I put you on the bed,

Come on, Give us a mbër bëgg naa la. delloo bëgge. looy xaar. ah xanaa bëre rek. ah bëre bëre laay xaar. bëre ngay xaar. waaw foo toll. Euh, ñoo ngi promettre bëriwoon tirage waaye dañoo bëri woon kii préliminaire lañ bëri woon léegi waaw. sa adversaire ngeen xaar. waaw. waaw kon ci kanam. ok. ñoo ngi leewaatoo ñoom ñaar carrière la ñu jàkkaar lool daan na ko damay leemu rek. tirage fu mu toll. tirage ñooy deuxième tirage. waaw. nan nga gisee tey ci tournoi bi. ah xanaa yëg liggéey rek yàlla may ñu ndam yàlla mooy maye quoi. baax na kon ci kanam. waaw yàlla nañu yàlla may ndam rek. mbokk yi Pape Maroon Carrière Pape abi sifle na Pape Maroon moo ñu woon ginnaaw carrière la nu jaakaar lool Pape Maroon carrière Pape Maroon Carrère Carrère moo ñu féete à gauche Pape Maroon moo féete rasu Paa Morone Carrière lamba ngi noonu ñoo ngi ba tey Pa Marone Carrière ñu ngay bëre ñoom ñaar Eh, Kaye doon na ko zongale léegi kal na ko kal na ko kal na ko kal na ko rob na ko taxawal ba xale yaa ngay bëre Pape Morone génn na léegi day jël avertissement Pape Maron jël na benn avertissement arbitre sifflé waat na ci diggante Pape Maron ak Carrière Pape Maroon Carrière Pape Maroon Carrière Pape Maroon Carrière bëri na ne ba mi-temps dellu si waat Carrière Pape Maroon Carrière Pape Maroon carrière Pape Morone carrière Pape Morone Guerrier Pape Marone Guerrier Pape Marone Carrière Pape Morone ñoo ngi ci digg géew kaye Pape Mor dina ko puusaat mu génn waaw Lamle yi de lolo Pape Marone Carrière Carrière Pape Marone daan na ko Carrière daan na Pape Marone Carrière daan na Pape waaw moo nu woon ginnaaw daw nañu jël aara jël nañ tànk ba aara war na ko ndomb yenn ba ci kaw doo suuf laa aada yéen na ko ba ci kaw doo ci suuf waaw bis baa ngi noonu kooku King Koo la mi daan moo jël bi beneen bi ci des dañ koy teel amateur yi tombalaa la dañ koy tirage ku gañ moto yaa ngi noonu waaw King Koo de moto yaa ngi noonu xamante ni mooy Ngor production Ngor nuyu naa la. maa ñu gis tey euh, moto yi ñëw ci biir làmb ji lan moo waral lool. moto yi. moto yi benn bi benn benn benn benn moo ko moom. beneen bi di ko tëmbal la pour amateur yi. lan moo waral initiative boobu. ñu gis ni ñuy teg xaalis ñuy teg nag nga andi leen moto kenn ki gagné jël moto bi keneen ki beneen bi nga téye ko amateur lu waral lool. parce que man amateur laa quand ba pare mboolem samay samay jarbaat ak samay rak ma xam ne dañ dañuy yitewoo moto moo tax ma def loolu loolu loolu laa jug juguma ci leneen. bi nga xamante ne mooy pour amateurs yi naka nga ko doxalee ba amateurs yi mën mën cee jot. damaa def bu bu jëlee billet deux mille ak billet cinq mille am nga chance pour gagné ko. Mbacke Tumbalaa la. ku ne sama sikkat nga yóbbu ko. mbër mi gagné day ñëw tànn benn bi ko neex ba noppi. non non non. mbër mbër yéen bu weex bi. bu yee moom bu weex bi. waaw. bu ñu amateur yi. même même marque la. ki ko la. waaw lépp même. kontaan nañ ci yow. ñoo fa. gis ngeen bu weex bi mooy pour mbër yi beneen bi mooy pour amateur yi bii de war naa mën a dem doxi soxla mooy demi-finale quart de finale demi-finale ah. alors merci. quart de finale ñoom euh, la jéggi léegi. lamb combat bi am diggante Ada Bawol ak Bara Dione euh, bi arbitre bi joxe. ñoo ngi ci quart de finale yi. seen kumpa ak carrière bu Bawol. wétu Bara bi ak Ange. aada bi ñoo yeggandoo donc combat bi dañ lañ gis ci image yi ñu ci table bi combat bi gis dañuy bëriwaat merci. seen kumpa ah waaw seen kumpa merci beaucoup seen kumpa carrière seen kumpa jël na carrière da daan seen kumpa daan na carrière seen kumpa daan na carrière seen kumpa daan na carrière seen kumpa daan na carrière woon nañ ko ñoom original Ada Boy Baol Ada Boy Baol original Ada Boy Baol

Dramé Mame Mbaye Niang moom moo ko nekkal fi nga xam ne tey mooy fii ci Grand muy demandé mairie bi moom itam ne ndeysaan mu ne du ma fa yem ne góor damay daal indi li nga xam ne mooy scooter tegal ko mbër bi nga xam ne mooy jël am kenn koo xam ne mu ngi ginnaaw moom itam du fa yem damay indiwaat beneen scooter muy amee Abi Mbaye ndeysaan moom itam moo indi nga xam ne mooy deuxième scooter bi. Abi Paye Abi ne amateur yi nga xam ne. dinañ jóge seen kër yi dagg ticket kenn ci ñoom dina ko jël léegi incha allah dinañ def li nga xam ne mooy tirage bi pour amateur bi nga xam ne mooy yóbbu bi nga euh, scooter bi ñëpp di ko gis waaw muy leer ci bëtu ñëpp nga xam ne mbir mi amul mbuxum amul mbuxum day leer waaw bésu tey bi dañ ci waa acca tirage baa ngi noonu maire dugal na loxoom génnee na benn génnee na benn numéro ticket 5000 numéro 80. ticket 5000 numéro 80 ku ko yor na yëkkati xool leen ticket yi ku yor numéro 80 waaye yow toogal da xaar numéro 80. numéro 80 foo féete xool leen ticket bu dee da nga kaa sànni yàqu de ah anamu ah man la te doo génne. 82. na gaaw 80 anamu. xool leen ticket yi bu dee da nga nag maa yóbbu ticket bi de scooter bi de bu dee da nga kaa sànni moom. ah. numéro 80. mu ngay daw di ñëw de. hee 80 kii kum doon. góor la am jigéen. yo kaay ñu vérifier kaay ma xool. ñëwal fii yow yow yow yow foo ngémboo eh ku la ngémb yow danga demoon Sangomar xana <laughs> du kooku du yow de dama ñibbi delluwaatal na gaaw ah? day niil cinq minutes bu ñëwul ma baale la cinq minutes booy indiwul ticket bi dama lay baara de amul recours nag maa yóbbu scooter bi waa mouvement gëm sa bopp ñoo ngi ci biir ndeysaan ana waa mouvement gëm sa bopp ñoo ñi nga xam ne ñoo ne si ginnaaw làmb ji bëgg am sens de. waaw. mais bu ñëwul ñu tànnaat beneen. duñ tànn beneen maa koy jël lu tax ñuy tànn beneen. man mi ngal ngali nii ba bëgg a dee nga man tànn beneen yow kii kan la kuy wax lii. saa dama lay mere de. am naa moto Babou Sarr a gagné moto. am naa moto. jaaytaar la moo tax boobu ba léegi ñu koy woo muy bañ a ñëw am naa moto Babou Sarr du ko doyee dara yow kii sa teel ma moto bi foofu eh baal ma moto bi foofu Babou Sarr a ngi noonu Babou Sarr ma fatan waaga nu Babou Sarr ma fatan waag ne lobantini a janjom na tofase ndeysaan Babou ay eh, mu nga jooy c'est l'émotion Babou Sarr a ngi noonu gone gone gone grand Yoff la ndeysaan baabu ñi ne ca ginnaaw ñëpp ñi képp koo xam nag ne ko mu jàppale monsieur le maire waaw le futur maire voilà loolu lay demee Babou Sarr yàlla na la jég ndeysaan ak bu ko defee nag ñu jàll eh, fekk fi original mbay délégué original moo ñu won ginnaaw mbay délégué la jaakaar lool loolu rëccuñu tey original Mbaye délégué. Mbaye délégué moo ngeem moo ngeem lu xonk li original moo ngeem moo ngeem lu ñuul li. original Mbaye délégué. damay ñaan futur maire de Dakar incha allah mais taxaw fi en tant que candidat maire man Moustapha Mbengue. jël na ko jël na ko jël na ko jël na ko jël na ko jël na ko nu mu ko def seen kumpa jël na ko. seen kumpa bee mbisin Béy Mbissine daan na seen kumpa Béy Mbissine daan na seen kumpa Béy Mbissine daan na seen kumpa original Mbaye délégué original Mbaye délégué. original ak Mbaye délégué ku ci nekk am nga benn avertissement. original Mbaye délégué. pour sécurité am si suñu commune taxaw pour defaraat suñu cadre de vie taxaw pour defar suñu environnement waaye jàpp. original Mbaye délégué. éducation ak étudiants yi am programme jeunesse waaye am programme sportif yëpp loolu yëpp ñu nas ko ànd ak programme santé boo xamante ne fuñ ko wax ñu ne yéen seen programme. dëppoo na ak bëgg-bëgg askan wi ndax xam nga. original Mbaye délégué. ay acteurs de développement ay acteurs culturels ay sportifs ñoom ñoo ànd boole. dafa liste boo xamante ne dañ ci jiital rek njëriñu askan wi njëriñu Grand Yoff liggéey ña ca nekk ñëpp ku ci nekk fa nga bokk ah, fa jógee ñëw. ànd summi ba politique. waaw muy coalition de forces citoyennes boo xam. original Mbaye délégué. Mbaye délégué biij na ko mu bañ. ñun suñu biir lés ànd ndox ñun bu ko tabax Grand Yoff bu bees tabax Grand Yoff. toogal toogal toogal toogal toogal. ñu incarné rupture pour tey lu mel nii. original Mbaye délégué. dañ ko war a defar. wër na ko ndomba Mbaye délégué original caxabal na ko original caxabal na ko daan na Mbaye délégué original daan na Mbaye délégué. Abdoulaye Diop daa leen bàyyi mu ngi gërëm ki nga xam ne mooy may Mame Mbaye waaye mu tam mu ngi gërëm Abi Paye waaw la waaw ah, mel ni final moo dese noo koy waajee final bi moom nga def ba ba rek waaw noonu la demul da ngay xaar ah bi sifflé da ngay demul da ngay xaar bi sifflé ma def li ma mun rek ak sama gëm-gëm baax na ba ci kanam. ok merci beaucoup. original bëgg naa la. maa ngi doon seetaan. mais affaire yi nu mu demee nii. waaw gis nga de lamb rek. Ah, waaw daa bee ci des. ci des. naka nga koy bëree. ah waaye comme premier combat rek. lamb moom moo amul final demi final yooyu yëpp man man man man yooyu yëpp. non ah, aw ma ci yooyu yëpp. moto lañ teg de moto moom defe naa ne war nga cee mën a dem doxi say. waaw wax dëgg na yàlla wax dëgg wax dëgg. waaw moom bakkan nga ci. ah non non nañ ko jox ci teg loxo suñu borom rek. nañ ko teg ci loxo suñu borom rek sport la rek. baax na ci kanam. nga wax gars yi nag ñëw naa quoi. ñëw naa ñëw naa Dakar. maa ngi Dakar. waa de original yegsi na. na àll ba nañ fii. Ah. waaw kon na bonne chance. merci. mbokk yi baa ngi noonu. beneen bis nag original final bee nekk noonu ñoom ñaar ku ci daan yaa jël moto bi. drapeau drapeau bi dañ ko fàtte ku jël lamb ji ma woo ma jox la drapeau bi dégg ngeen dañ ko fàtte aca fair play nag ay jàmbaar ngeen lii la lii bi bu ñu leen wootee tegal leen xaalis su ma ko leen ngeen ñëw bëre bi yéene ko moom. a ñun dañuy xaru ndax yéen man dalee ngeen mu ñëw fayda parce que félicitation kan la ma yor gaañ final baa ngi noonu. Birame Mbissi mooy wan ginnaaw original la ngay daw original Birame original jël na Birame Mbissi original original Birame original original Birame Mbissi original na ko original Birame daan na original waaw Birame Mbissine daan na ko Birame Mbissine daan na original